donc nous nous, une ni musul am concertation suñu biir daf trop mais c'est important Nous si leeral conseil national de la consommation en 2019 nous avons eu def conseil national de la consommation c'était le 8 août 2019 beneen bi c'était le 1er octobre 2019 euh, ci a adopté une réglementation ci wàllum euh, secteur de la boulangerie ak li Et ci parfois des na compréhension bi ñu am cadre conseil national de la consommation parce que conseil national de la consommation c'est un cadre consultatif certes mais c'est pour prendre des décisions comme ni ko dese yi waxee bi ñu amee prix nous stable amul problème pour waxtaanee euh, convoquer conseil national de la consommation mais bi ñu demee pour waxtaan ci lu jëm ci wàllum boulangerie euh, dëgg la mu nekk secteur bo xamantene euh nekk na confronté à beaucoup de difficultés ñu def ay waxtaan ñu yaatu ci euh, ci ci secteur bi def nañ fi ñaari conseil national de la consommation moy yi ma lim tàll te loolu yëpp acteurs yi nga xamantene ko conseil daan nañ fekke xanaa buñ la convoqué ñëwuloo maintenant buñ la convoqué nag ñëwuloo loolu nag wax dëgg yàlla euh, damay ragal bu bañ nek nekk responsabilité ministère du commerce donc nous avons eu ci première réunion euh, dernière réunion conseil national de la consommation euh, ci octobre euh, après 2020 ci la pandémie Tambali. tàmbali ci Tambali, nous bi ñu un problème pandémie nous avons convoqué une réunion ñu ko une réunion nationale sur la disponibilité des denrées de première nécessité Nous avons convoqué une avec tous les acteurs commerçants les administrations les associations de consommateurs Nous devons parler sur la situation du marché et la disponibilité des produits de grande consommation dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 Nous avons une réunion une recommandation yi ñu comité de veille parce que avons décidé de les lépp lu nous assurer et sécuriser notre approvisionnement marché euh, comité bobu xanaa ci année bi 2020 bobu rek réunion de au moins 4 wala 5 wala 6 fois à chaque fois bu jafe-jafe amé ci importation produit ci port mu am ay intervention yu ci def te administration yépp participé ci lolo tax ñu traversé pandémie bi 2020 lu muy metti metti yépp amuñu woon benn jafe-jafe comité bobu ci mois bi ren bi def na fi réunion le 18 janvier defaat une réunion le 25 mars 2021 si dernière réunion 25 mars 2021 c'était avant le Ramadan il ngi fàttaliku dafa nekkoon encore benn cadre pour gën a yaatu ndax dañ koy yaatal ba de consommateurs yi les commerçants, ñëpp commerçants yi ñoom àllajee ñu ngi woon foofu monsieur Cissé mu ngi woon ils ak ñeneen ak ñeneen donc gisuma fi ñenn ñoo xamante ne ñun li ñu def yëpp donc c'est important de temps en temps aussi ngeen euh, di rappeler li nga xamante ne loolu la stal bi di def réunion boobu bi ñu ko defee bu 25 mars dernière réunion 25 mars amoon na benn association de consommateurs bu ko defoon benn proposition bu intéressante xamatuma sax ban association la doon wax ni dañu war a am benn indice euh, de de confiance de la consommation euh, bi ñu jógee ci loolu ñu gis ni xalaat bi kat nekk na xalaat bu am solo waaye xëy na au lieu ñu wax sax ci indice kese mën nañu créer beneen cadre boo xamante ne lépp luy problème euh, consommation ñu mun koo waxtaanee foofu ñu créer li ñu naan euh, conso confiance nga xamante ne tous les deux mois yenn ñuy wax trois mois pour le conseil national de la consommation ñu dañu ne tous les deux mois rencontre et bi ñu première édition mu am loo xamante association de consommateurs yi waxoon nañ ko euh, ministère bi notamment ci wàllum affichage yi ci yeneen euh, moo doon organiser deuxième réunion bi mu amoon ay rencontre yoo xamante ministère bi amoon ko ak les associations de consommateurs ñu def suñu deuxième réunion conseil euh, conso confiance encore invité ci tous les acteurs ce sont les mêmes acteurs yi fi wax nous avons fait fekke nañ ko ci lañu profité en même temps ci deuxième édition bi distribuer la lettre du commerce et c'était spécifiquement euh, ci le prix donc man moo à chaque fois que nous avons ni concertation sur le prix daf may là il nous avons ay décision parce que le ministère du commerce comme je l'ai dit, a dafa am mission première mission ministère du commerce c'est l'approvisionnement approvisionnement du marché il ne sert à rien nous prenons, prix prix prix prix suukar bi dërëm lay jàpp gisul sens donc l'unité de ñu avec les commerçants c'était d'abord sur l'approvisionnement du marché

mënuñu tamit lu ndaw lu nekk rek ñu ñëw taxaw ne leen lii lañ ci def parce que du am benn benn sens suñu deuxième mission moom mooy la qualité donc troisième bi moom mooy prix yi te prix yi wax dëgg yàlla am nañ ci ay concertations yu ñu ci amoon avec les commerçants commerçants yi si seen bopp ku ci nekk déggoon nga ci mois de ci ci deux bi yëpp ñu doon toujours les associations de commerçants nous sensibiliser ces membres sur le respect des prix conseil national de la consommation le bon moment pour réunir le conseil parce que dañoo ak ci niveau mesures depuis le 18 janvier Nous jël ay mesures ministère des finances ñuy am yoo xamante ne réussir na am na yoo xamante ne xëy na yéex naa am mesures yooyu gis nañ ni même bu fekkente ne tey jii nekk na à zéro pour cent xëy na njëg bi dina toll ci yenn niveau mu laaj nag mu toog waxtaan ci cadre conseil national de la consommation pour def d' autres propositions au gouvernement loolu moo ñu fi bàyyi et eh, li li li li li yi wax mu am solo.

donc mu nekk une industrie boo xamante ne mu néew ak mu bare créer na fi ay emploi te ñun xam nañ bu baax suñuy entreprise amuñu doole même doole que entreprise yi nga xamante ne moo nekk mbir mu réew kon bu ñu exposé suñuy entreprise as tuut yu dëgër ci même concurrence que entreprise yi nga xamante ne dëkk euh, développé ñoo ko moom. ñuy subventionner cette entreprise D'ici ci def lu nekk mais bu boobaa ñun lu ñuy def mooy ay consommateurs kese la ñu doon amuñu fi duñ fi am benn outil productif donc c'est tout à fait normal que le Sénégal comme bépp dëkk boo xamante ne dafa bëgg dara ci réewam ak ci askanam pour protéger quand même son industrie te kenn terewul keneen implanté fi entreprise. c'est vrai xëy na nit ñi conditions yi yi wan war moom lañ dul man wala daf leen ko dul jaral mais je ne vois pas lan mooy tax nit dina ñëw naan man damay implanter une entreprise si si ci buy yëngu ci wàllum suukar wala ci benn produit respecter règles yi te du am euh, suite gis nañ fi amoon nañ fi benn filière bu dëgër boo xamante ne euh, au niveau international dañu ko doon toujours nawee mais bi ñu ci dugalee importation bi gën un am remonter la filière bi industrie yooyu kenn déggatu donc il faut aussi nous bàyyi xel ci loolu état dafay jouer toujours ci équilibre Benen bi moy les commerçants man damay faral di wax ni ñun ñëpp muy état muy le producteur muy le commerçant muy le consommateur ñom ñëpp ay partenaires parce que bo produire te mënoo jaay mais amul njëriñ.

xamante ne moom ay charge bañ a teg consommateur bi loo xamante ne attanu ko ndax bu ko ko tegee dafay métti te comme am na te ñu koy privilégié di koy encouragé mooy boo jaayee lu cher dañuy dem ci sa morom donc je pense ministère bi commerce li mu waroon def jusqu'à présent contre def na ko nit nag mën am say propre Euh, euh, appréciation di wax wàllum prix dafa nekk secteur boo xamante ne du da ngay yeewu rek toog ci télé di waxtaan di waxtaan ci prix parce que marché la ñu wax marché lu ndaw rek moo koy appelé lu ndaw rek mooy créer perturber marché gis nañ fi daaw ci début pandémie bi bi ñenn ñi demee ci presse bi naan euh, njëg yi day wàññeeku luñ ci gis dañuy gis koo xamante ne li mu soxla parce que dafa am un pouvoir d'achat dafay jënd lu muy soxla si deux ou trois mois mais bu ko defee ñeneen ñi nag heureusement ba ñu yàlla suturaalee ba période boobu ñu amoon un niveau d'approvisionnement correct ba nga xamante ne même bu ñooñu bu ñu ko defee à chaque fois euh, ñi nga xamante ne ñooy distributeurs yi la doon reconstituer les stocks donc boo nekkee si situation boo xamante ne dafa tendue doo ñëw naan prix yi yokku na wala prix yi dina dina yokk mais bu prix boo montee prix yi dañuy yokk te ma yor produit mën naa ko denc di xaar bu yokkee ba mën cee bénéficier wala ki nga xamante ne dafa am pouvoir d'achat mu ne xaaral man ma jënd plus parce que dégg naa prix dafay yokk donc il faut aussi mbir boo ciy wax nga jéem cee am as tout li nga xamante ne loolu la mbir bi war a tëddee bu bu ko defee rek doo mën a euh, dugal population bi si yenn erreur état li mu ci waroon def yëpp def na comme ni ma ko waxee janvier ba léegi ay mesures rek la ñuy jël te alhamdulilah bu ñu defee de façon stagiaire ndax yeneen dëkk yi déjà ñu ni comme joxe ci euh, Claude joxe na fi exemple Côte d'Ivoire TVA sur la farine ñu ngi ci 0% pour cent te terewul ñu ngi jaayee farine bi déjà à vingt et francs donc ñun bu ñu ko defoon bu njëkk kon dootuñu am marge tey jii au moins am nañu marge boo xamante ne mën nañ koo def pour alléger encore wala bañ njëg yi àgg ci benn niveau alors que bu ñu ko deful woon njëg day continuer rek ñun dañuy suivre tout le temps les coûts dañu xam ni actuellement alhamdulilah àgg nañ ci benn pic boo xam ne am nañu yaakaar ni incha allah dina am euh, cours euh, euh, régression courbe bi d'ici quelques semaines loolu ci suñu yaakaar la te ñu sukkandiku xëy na ci li nga xamante ne prévision yi organisation mondiale du commerce def bu boobaa tamit l' effort bi nga xamante ne état bi bu mu koy def dina nekk un effort supportable aussi pour l' état mais aussi pour les ménages sénégalais donc yooyu yëpp dafa nekk ay éléments yoo xamante ne ko war a toujours di mettre ensemble pour jël ay décisions yu gën baax ci euh, population maintenant concernant euh, huile bi euh, huile bi tamit amoon nañ fi ay ay ay rencontres je pense man mii président naa si au moins deux avec ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci wàllum secteur huile bi dégg la suñu waxtaan bi yëpp c'était autour de l'approvisionnement nan la ñuy fexee ba approvisionnement bi gën a parce que xam nañ ni rythme de consommation bi huile bi moo gën a euh, gaaw li nga xamante ne moom la am ci euh, ceeb bi ndax par rapport à ak euh, capacité de stockage waaye ñu ngi sant yàlla bi nga xamante travaux yi ñu ci def avec les acteurs permettront woon déjà ñu approvisionner le marché ba mu toll fii ba pare quand même niveau yi comme niko Aziz waxe mënoon na gën a euh, romb fii mais alhamdulilah bu ñu atteindre niveau bi et avec les différents différentes propositions yi nga xam jox nañ defal nañ ko état inshallah dina gëna a donc leeral yoy laa ci bëggoon apporter avant may def euh, euh, lecture proposition bi nga xamante mom lañuy def au gouvernement pour ñu alléger vraiment souffrance ou en tout cas métti euh, wala cheray euh, produit yi nga xamante mom lañuy la ñuy jaay fii Sénégal maintenant yeneen proposition yi ñu wax yëpp am na solo comme li jëm ci euh, ceeb bi li jëm ci yàpp bi li jëm ci yeneen secteur yi yëpp mën nañ ko gën a waxtaanee parce que lépp ñu koo régler ci benn cadre xam naa aussi d'ici quelques jours dinañ organiser waat la troisième édition bu Conso Confiance dina nekk une occasion déjà pour nous rappeler mesures yi nga xamante ne moom la état jël depuis 2012 ñu am euh, baisse bi parce que c'est important de rappeler parce que li ma fi gis rek déjà euh, dafa laaj ñu koy rappeler ndax loo xamante c'est à moins d'une année mais ñëpp dafa mel dañ koo fàtte donc lu mel loo xamante ne 12 ans c'est important de le rappeler pour nit ñi aussi mu ñëwaat seen xel dinañ organiser donc la troisième édition de la Ponce Conférence di wax ni ñun concertation toujours ministère du cadre yooyu le créé eh, comité de veille bi mujj mu le 25 mars donc au mois de mai ñu def conso confiance au mois de juillet ñu faire une édition conso confiance mois de septembre, de septembre dañuy une édition donc tous les deux mois ñu ngi toog waxtaan peut-être que kon ma jàpp fii mooy ba léegi am na ñoo xamante ne comprendre ñu bu baax cadre yooyu njëriñ bi mu war am peut-être euh, man loolu laa loolu laa gën euh, maintenant concernant

le ministère du commerce dina rencontrer benn secteur donc ni ñu un cadre consoconvert Nous lañ créé beneen cadre action PME di ci rencontrer les petites et moyennes entreprises du ñuy wax jafe-jafe yi ñuy jànkoonte ñuy xool nan lañ ci lëkkalooyee avec yeneen administration yi pour mën ko saafara donc concertation ministère du commerce moom yàgg na fi parce que dañoo xam ni euh, euh, lu kenn mën ñaar ko ko dàkk donc ñun ci loolu la ñuy dox te ñu ci invité ñëpp ñu gën a approprié wu cadre yi nga xam ne moom la ñu teg ndax nag ñoom ñoo tax ñu créé ko pour jéem a ko du ñuy saafara rek seen seen jafe donc ci wàllum euh, déclaration bi euh, euh, mesdames et messieurs chers compatriotes